presse n'en parle. La presse n'en a parlé euh, euh, euh, et revendiqué. J'ai dit a parlé la clarté, c'est pas la même chose. Alors alors alors oh, duñ ci comme danga ne ma yéen duñ ci ñëw di di polémique. Je pense que ñaar c'est pas vous. Bien sûr, mais c'est la presse Je pense que ñaar yi bokkul donc duñ fa nekk di di di xëccoo ci ci wax boobu wala di di ci wat alors Abdoulaye le juge d'instruction bu bu ñu bu fekkee jël na dossier aujourd'hui jàpp ne euh, jox na ko li nga xam ne bu ñu sukkandikoo ci avocat Pape Alé Niang juge d'instruction bi jël na dossier bi euh, pare ci war ko jox procureur de la république maanaam ci diirub ñetti fan procureur de la république nag am na jours ngir mu xool ndax dafay jël ordonnance de renvoi euh, ci police correctionnelle wala dañuy jël mbir yi bàyyi ko mu am bàyyi négandu ko mais leneen loo xam ne tënk nañu ko ci maître Ciré Clédor Ly ci li nga xam ne fësal na ko mooy yeex gi nga xam ne nemmeeku na ko retard bi nga xam ne am na ci euh, dossier bi euh, tax na seen xel tey ci li nga xamante ne moom mooy aujourd'hui ñu fexe ba may Pape Alé Niang une liberté provisoire su fekkee trahiroo ma li nga xam ne moom la ñu tënk ci biir ci biir communiqué bi euh, nan nga gisee loolu. instruction bi tëj nañ ko. Mhm. dossier bi dañ koy enrôler. oui. donc normalement rien ne devrait s'opposer. Mhm. à une nouvelle demande de liberté provisoire de Pape Alé bu fekkee ni avocat mu dugal nañ ko loolu moo di jàngat bi njëkk leneen li moo di yéexitee mbir mi def naa ni am na mbir yoo xam ne xew na fi di gën a garaaw te gis nañu gaawtu giñ ci gaawtu pour mën ko yóbbu fii nga xam ne la mbaxane doon benn kanamu yoon pour ñu war ko mën a euh, ñu war ko mën a jeexal. Mm-hmm. am na ñoo xam ne dañ fi nekk euh, liberté provisoire euh, la ñu am te liberté provisoire yooyu depuis cinq ans depuis dix ans ñu ngi ci liberté provisoire. je rappelle que Bougazelli liberté provisoire la nekk depuis combien d' années pour véritablement crime économique depuis combien d' années mi ngi nekk en liberté provisoire kii nga xam ne moo di Oumar Sarr si wàllu boppam nekk ministre de la République. il partage il partage euh, le conseil des ministres. waaw moom laa lay wax waaw moom lay wax avec le liberté provisoire la toog. Mm-hmm. dama wax rek si liberté provisoire la toog donc en réalité loolu dafa am loo xam ne il faut ñu jàngat ko lu tax. liberté provisoire Sénégal si yenn ñi dafay nekk liberté provisoire continue te kii nga xam ne nag mooy suñu confrère liberté définitive mooy suñu confrère def naa ni euh, Bamba mi ngi wax secret défense wax grande muette en réalité jusqu'au moment où nous parlons les sénégalais parlent de secret te kenn mënu la wax lan moo di secret défense loo xam ne Pape Alé wax na ko jëm si li nga xam ne moo soxal euh, mhm. armée wala gendarmerie wa mhm. ilaa li nga xam mhm. moo di beneen force boo xam ne mi ngi si biir kii bi ba léegi li ngi wax secret défense mais kenn du la ne lan mooy secret défense li li Pape Alé wax kenn du la ko wax kenn si ñoom du la ko wax amul kenn ku la koy wax nag. et souvent moom la ñuy brandir. comme ni ko waxee même secret défense bi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ne bu ñu waxee bu ñu gisee chef d'inculpation yi loolu procureur wax na ko juge d'instruction wax na ko lii ak lii ak lii lañ ko reproché mais dans le fond ñiy taxaw ñëpp di wax si affaire secret défense kenn du la wax fii lan moo di secret défense mais damay laajte lan moo gën a nekk secret défense dindum euh, armement. ak fa mu toll lan moo ko gën a nekk secret défense léegi nag li ñuy reproché Pape Alé si li nga xam ne moo di dossier bi bu mu jàkkaarloog juge li mu ko laaj encore une fois et nous parlons parce que itam jàkkaarloo ñu ak ay avocat am toog waxtaan ñu ñu gindi ñu pour itam ku si nekk am force d' argument par rapport li nga xam moo di explication mais bu la laajee yow bu ñu la bu ñuy waajee auditionné Ousmane Sonko fële si kër kii bureau Maham Diallo yow Oscar Sierra si Facebook bi nga ko lire. Mhm. man itam si réseaux sociaux yi laa ko lire réquisition faite au groupement national des sapeurs de pompiers sapeurs pompiers. itam si si réseaux sociaux yi laa ko gisee loolu de bokk na si li nga xam ne reproché nañ ko ko maanaam message rajo bi nga xam ne soxal na euh, takk der yi nga xam ne ñoom la ñu waroon euh, tasaare ndakaaru pour ñu waajal li nga xam moo di génnub Sonko dem wuyu juge d'instruction li si topp mooy affaire juge Mancabou léegi nag bu fekkee ni laaj nañu loo xam ne jëm na si ay dossier xëy na bu ñu wax sans autorisation de la hiérarchie militaire xamuñu exactement si lan la ak si lan la tënku dëggantaan par rapport ak li nga xam ne wax na ko wa ilaa brandir na ko wala lu demee noonu. mooy secret bi non non non non non dama encore une fois dama ne loolu si chef d'inculpation yi la encore que bu ñu nee diw mi faatu na te militaire la takk der la journaliste yi kenn waxu si journaliste kenn xeexu si parce que Pape Alé dafa bokk suñu moo tax ñuy génn en réalité je me dis que c'est ne pas comprendre véritablement la marche des choses par rapport véritablement de la société. parce que parce que parce que tey jii nii parce que parce que tey jii ki faatu yoon mi ngi def liggéey si wàllu enquête te yow nga xam militaire ak fu mu toll même bu jëlee yàlla bu jëlee bakkenam corps bi si wàllu boppam famille moomu ko armée moo ko moom donc dafa nekk mbir boo xam ne presse bi fu mu yegg ba fu mu yegg ba yegg si fii. def naa ne lépp lu ñu si war a def def nañ ko en terme de traitement lié au factuel parce que am na loo xam ne tam ñun mënuñu fa yegg. Hmm. si li nga xam ne loo xam ne aussi de aussi la presse c'est pas son non non la presse n'est pas là pour dénoncer ay lii la ñu war a def lii la war a def defe naa ni ñi nga xam ne ka euh, faatu di takk der fa la bokk gëm naa ni. moo xam gendarmerie la gëm naa ne moo xam armée la gëm naa ne moo xam euh, parquet bi ak juge d'instruction bi mhm. ñu ngi def liggéey boo xam ne si wàllu enquête yëgoo ko yëguma ko et de ce point de vue là je pense que loolu dafa war a leer boo demee un peu partout à travers le monde fii si Sénégal ñaata yoon lañ fi jàpp politicien tëj ko kaso waa kuréel gi mu bokk parti gi mu bokk ak coalition gi ñu bokk ñooy génn xanaa su boobaa nag presse dafa war a génn nag ne woote marche nag donc d'accord oui. encore une fois xam nga le mot corporatisme mhm. pourvu que ce ne soit pas péjoratif mhm. si parce c'est pas péjoratif bien que dama ne docteur Babacar Diop mhm. bu mu àndee ak ñoom ñoom Guy Marius Sagna Cheikh Omar Sy tu te place de l'Indépendance dañuy dem palais bañ ko jàppee dama ne SAES dafa def décret le syndicat autonome des dafa def grève décrété ba pare ne buñ ko bàyyiwul nangam sangam nangam sangam. aujourd'hui encore les enseignants parce que un des leurs a été agressé la vie jàppee ñi nga xam ne ñooy infirmiers yi fële si Linguère mhm. ak feneen fële ca Louga leen la da ngay gis ni ordre des médecins dafa génn ak kuréelu blouse blanche yi dañoo génn ak syndicat yi fu nekk dañoo génn xanaa su boobaa nag presse boo a nag génn rek tàccu leen Sénégal génn leen ah, ak yu demee donc il faut comprendre encore que encore là pour Pape Alé pour mm-hmm. Pape Alé Niang on l'a pas arrêté pour des faits délictuels en dehors de l'exercice de sa profession mm-hmm. dès lors qu'il s'agit je dis bien dès mm-hmm. lors qu'il s'agit d'une arrestation liée à l'exercice de sa profession je dis les membres de sa profession dañuy génn nag. on on le droit de le soutenir bien sûr oui former un même bloc. former un même bloc Fadab tu me mets de la pression. tu me mets de la pression Fadab tu me mets. on doit oui je termine par là-bas tu mets la pression et ça c'est <laughs> parce que dafa bokk non non en réalité xeex pour euh, presse taxaw xeex pour démocratie Bamba est-ce que xam nga ni Sénégal dugg na si soixante-treizième place mhm. si rapport Reporters sans frontières bi mu mujjee génn si li nga xam woo soxal liberté parce que dañ ko tënk si jàpp Pape Alé tënk ko si tëju signalu Sen TV ak tëju signalu Walfadjri boole yeneen i mbir yu xew si presse bi Sénégal jógee euh, su ma jumul vingt cinquième ba tàbbi soixante treizième place Sénégal depuis le premier décembre dugg na si li euh, euh, zone rouge LFG bi nga xam ne mooy kuréel gi nekk New York di saytu ak ak yelleefu journaliste partout à travers le monde am na loo xam ne nag il faut ñu il faut ñu taxaw. mais su ma ko waxee ma rek ba xam su ma ko waxee xam nga dama ne yéen presse bi dañoo def lu raw ma ne wax si waxi informé si kaw Pape Alé da ngeen a wàcc dañoo wàcc si kaw tali bi ñaxtu pour sa libération mais mais expliqué nañ la wax alors est-ce que du le fait que dañoo wàcc si kaw tali bi alors bàyyi suñu micro bàyyi suñu bind dem si kaw tali pour revendiquer en tant que citoyen sénégalais xam nga déglu nga moom li mu wax man déglu nga tamit li may wax dama ne la grande muette buñ ko tuddee mooy ñoom la la ngeen naqari ñoom mënuñu ko wax ma ne yéen da ngeen dañoo jël yéen ay investigation ñu wax Pape Alé Niang fait partie des investigations des gens qui font des investigations. xam nga fu mu bokk xam nga fu mu bokk il fait partie du collectif. dama lay dama lay information il fait partie du collectif Nobel Songo. je vous fais la présentation pourquoi wax loolu. dama ne parce que tout simplement bu Sénégalais yi xamee ne am na ay takk der yoo xamante ne ñoo fi nekk pour suñu kaaraange am na ñu si nekk seen bakkan parce que ñoo informé parce que ñoo def plateau parce que ñoo joxe journal bi loolu moo ñu jël ñu jël Pape Alé Niang di jéem a fexe pour sa libération sénégalais yooyu. pour ne serait-ce que pour la loyauté war nañoo dem ba jeex si gëstu bi si investigation si toppatoo ñooñu lu tax ñu ñàkk seen bakkan kan moo la lan moo leen sànq si ni waajur. waaw toog na si ñu njaboot. waaw waaw waaw waaw léegi waaw ana police ak gendarmerie mais meurtre quand il y a meurtre C'est pas, à la presse. Non, j'ai dit l'enquête. De, de la, la presse, non, j'ai dit, nous informons, nous informons. Encore mais pas, Il faut quand même qu'on pour part je dis encore une fois, pas le rôle de quand il y a meurtre, quand il y a vol avec infraction, quand il y a agression, quand il y a vol à l'archer, gendarmerie ak police, liggéey gu mucc ayib gi ñuy def mooy l'enquête ba jàpp ki nga xam ne moo moo moo parce que ñoom fa ñu toll si niveau d' enquête ak la ñu yor mu di seen liggéey ñu ngi koy def te gën naa ne si miir bi ngay tudd si wàllu mhm. militaire bi ñu ngi siy def seen liggéey il n'appartient pas à la presse aujourd'hui dem gëstu bay bay nuuru biir géej di dem euh, xool alors dañuy dem jëli page de dañuy dem jëli page de publicité ñëwaat ci ci plateau bi yeggale waxtaan bi pour sur le plateau ginnaaw bi nga xam ne jël nañ suñu page de publicité remercier le service commercial euh, woyal waxtaan wi ci li nga xam ne kon moom mooy troisième point bi ñu war a waxtaanee ñetteelu point bi nag moom mooy euh, ce rapport de l'IGE bi ñu ne dafa épinglé Aminata Touré démb moom def na sortie moom euh, mi nga xam ne moo jiite woon ay jamono conseil économique social environnemental parce que li ñu ko épinglé moom moo jëm ci gestion wam kon loolu nañu xooli euh, moom le président la Macky Sall euh, bi ñu ko tuumaalee ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbiru Taïwan yi nga xam ne euh, tolloon na ci sept milliards de francs CFA ba accusé ko ci terewul mu samp ndëndam moom kenn mënu ko teree samp ndëndam et que cette page est définitivement tournée digganteem ak président de la République Macky Sall elle a même appelé ñu def conférence publique boo xamante ne ñu ko fa jiitu di Aminata Touré Aminata Tall plutôt nga xam ne def na fa lu ëpp juróom benn at wala jege ko ki nga xam ne moom Idrissa Seck mi fa nekk léegi ba ci moom xam ne nekk na fa ñu xool auditer leen ba xam kan moo luubal est-ce